société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse tali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo ki ko man ak ki koy jéem bokk ñu njiitul MEDES di président ba ñu jëpp ginnaaw ay at xam ne amal na ca diwaanu Paris la France African Leadership Awards ñeenteelu édition bi ma ngi koy amalee ca diwaanu États-Unis yéenekaay gi di Rewmi Quotidien mu ñuy xamal naan ñoom mbooleem ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu cérémonie bu mag boobee nga xam ne mooy version internationale a yéene kaay gi ne na lu ëpp fanweer ci ay a danañu jël signalu TFM ngir nag daal di koy def direct yéene kaay gi nee na African Leadership Award ci bopp yi danañu ci sargal mbooleem ñi nga xam ne ay doomu Afrique lan nekk ay kàngam ci adduna bi yëpp yéene kaay gi nee ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru novembre lay am ci diwaanu États-Unis nee suba ci samedi ji yéene day wax ne jël lii nga xam ne mooy African Leadership Award si jëli ko Paris la France yóbbu ko Amérique loolee défi la waaye nag man je suis un homme de défi yéen kaay gi nee na moom président ba ñu jop daat nay wax ne li ñu bëgg mooy Afrique bu yees boo xam ne ay doomam ñoo ko gérer une nouvelle Afrique gagnante intégrée prospère pacifique nee na ci adduna da ngay ambitieux waaye nag da ngay audacieux ba tey ci journal bii di Rewmi Quotidien xëy ca xët mu njëkk daal di wax ne I am an African MC in New York ba tey ci journal bi moom président ba ñu jop daat nay wax ne a na nag ay innovation yoo xam ne amal nañu ko ci African Leadership Awards yéen a kay gi di réew mi quotidien nee na mbir mi bu leen ci dara rëcc ndax mbooleem loo xam ne aju na si luy doxal Afrique danañu ko fa daal di waxtaane yéen a kay gi di le quotidien bàyyi mbir moomee ñëw ci njiitu réew mi di président Macky Sall mi nga xam ne jamono ji moom la ñëpp teg bët ci lu jëm ci kan lay def premier ministre loolu nag pression maximale noonu la ko journal bi xëy tuddee ndax nee na mbir mi du yomb benn yoon ci Macky Sall yéen a gi di mi quotidien nee na neexul ba neexul waaye nag Macky Sall ni muy saax-saaxee sunu constitution bi maanaam ëpp na ci juróom at yi yi am na juróomi yoon yoo xam ne Macky Sall andi na ay coppite ci constitution bi ngir nag poste premier ministre ngir nag nga andiwaat ko mënuloo ñàkk laal li nga xam ne mooy constitution bi Thierno Bocoum ñu xëy ko ci yéen kaay gi la Tribune nee na Macky Sall ci boppam moo war a bàyyi di fowee sunu constitution bi calcul politique yi nga xam ne moom la Macky Sall di def daf cee war a bi ci calcul politique yi nga xam ne moom la nekkee loole nag kàddu yi Thierno Bocoum la nee na mbilim la ci rek Macky Sall laal constitution bi yéen kaay gi nee na Macky Sall nekkul ci lenn ay calcul politique politique yéen a kaay gi de la témoin nee na en tout cas am ba des sall yu laal constitution bi yomb na ko lool Omar Gueye mi nga xam ne mooy porte parole bi ci yéen a kaay la Soleil nee ñi nga xam ne ñooy wax ne Macky dafay làmbatoo ñooñu xamuñu lu bëri ndax nag Macky Sall làmbatuwul benn yoona ndax réew mee ko laaj jamono ci yéen a kaay gi la Tribune nee nag lu jëm ci wàllum nag tab premier ministre Macky dina bëri moom lañ fi bëgg andiwaat sénégalais yi nag li ñuy laaj daal maanaam ñu évaluer maanaam andil ñu bilan ci ñaari at yi nga xam ne jëlee nañ ko fi xanaa nag boo fi jëlee mbir nag ba bëgg ko fi andiwaat nag xanaa di nga leeral sénégalais yi njariñul jëlee ko fi ak njariñul andiwaat ko fi yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naa ñu nag ginnaaw conseil supérieur de la magistrature ñi nga xam ne ñooy xeex ak ak yelleefu doomu aadama seen kàddu ci justice su réew mi Seydi Gassama Amnesty International section Sénégal na nag justice jamono ji daal nekkatul réalité ci réew mi Alassane Seck ci biir journal bi di Sud Quotidien nee na bu ñu waxantee dëgg justice bi nag dafa jeng yéen a kaay gi de Les Échos nee na rapport 2021 bu union européenne bi nga xam ne def na ko ci déndu Sénégal ci jigéen ñi nga xam ne ñoo ngi leen di fitnaal bi ñu ko xaymaa téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya ak juróom-ñett ci ay jigéen maanaam ñoo nga leen di bund xataal di leen di teg fitna yéen a kaay gi di Stades nee na Edouard Mendy mii nga xamante ni jamono ji mooy toj Europe Edouard Mendy nag ma ngi déranger Europe la waral nag bokk na ci li mu nekk africain ndax nag gis nañ ñii nga xam ne ñooy waa FIFA amul benn respect benn considération boo xam ne jox nañ ko góolub Sénégal bii di Edouard Mendy yéen a kaay gi ne ne Paris Saint-Germain jamono ci nag bëri na ay interrogation yoo xam ne gars yi ñoo ngi ko si defa ndax nag Messi bi mu ñëwee Paris Saint-Germain am na ñu bare bari ñoo ngi doon wax naan attaque bi di Mbappé di Neymar di Messi kenn mënu leen a téye waaye nag yéen a kaay ne na loole nag bëri na ay yaakaar yu tas ndax li nga xam ne daal la ñu nemmeeku ci Paris Saint-Germain ak taxawaayu Messi Mbappé Neymar maanaam mbir mi daal demul ceng dikkul mbay laara société nationale